mooy sëriñ ahmadou badawi mi jiite daayiratu rawdu rayaxiin te taxawaloon jataay bii tey ci ndigalu sëriñ bi waaye daanaka li ma waroon wax lépp sëriñ abdou samad mbàkke mu sëriñ Sohaybu wax na ko te wa ma amruna illa waxidatun kalamhin bil basar bu xasee ba wax rek kàddu sëriñ bi tàbbaale na ci biir ndax lii mu wax bu mu fi toogaatoon ba guddi itam kàddu yi mënu ko génn ndax la ci jiitu mooy cantuk sëriñ Ahmadou Badoy gi mu jottali ci taxawaayam ndax lii liggéey bu rëy la ndax sëriñ Touba ni ko sëriñ Abdou waxee léegi si Abdou Samad yàlla suñu borom da ko wane ba noppi kon doonatu lu ñu jaay wala mu doon lu ñu wane yàllaa ko wane ba noppi kon li ñu war mooy jéem koo topp ak jéem koo xam loolu nag yéen ñi nga xam ne yéenay daayiratu Rawdu Rayaahiin te suñu borom def ci bëgg-bëggu Serigne yàlla jagleel leen liggéey boobu ngeen di ci góor góorlu la ngeen ak la ngeen mënut muy liggéey boo xam ne itam alxuraan moo ko njëkk a santaane ndax falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi diin wa li yunziru qawmahu ida rajahu ilayhim laallahum yaxdaruun kon loolu day mel ne warteef la ci ñenn ñi ñu mën caa wutu ña ci des kon nag yéen yàlla def na sëriñ Touba jagle leen liggéeyam bu rëy bii te sëriñ bi kat bind na fu bëree bëri wax ne wa man nahaakumu an taallumi fa huwa xalifatul laayni mujrimi waxaati ne moom nu ma ko waxeet sax euh, bokk na ci pexe iblis laay mujj mi saddul muridin ani taallumi sëriñ bind na fu bare bare wax na ko ba tàyyi ci njaarim ñëpp dégg ko ci li nga xam ne bokk na ci lii seytaane di yàqale taalibe yi ngir fexe ba dox seen digg xam-xam waaye nag mbirum Sëriñ Tuubaa lépp lu ci waxtu agsi rek na mu ko waxe woon aw so dafa mel ne sorrabalu def ba noppi mu denc ko waxtu waxtu wa jotee rek mu tàllal ci wenn sor ñëpp na lii ana fu mu ne woon mbirum sëñ Tuubaa yëpp noonu la demee kon nag mboolem jëbooru sëñ Tuubaa gi fi mas nekkee ñëpp ku ci mas a agsi ku ne la cay sag fànn def nga ca lañ ca war def lépp bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñëwee nag waxaat ne yitteem jëpp ak liggéeyam bépp mu ngi ko jëmee ca daayira daayira Cheikhul Khadim awma benn xalaat awma benn bëgg-bëgg lu may loolu kon loolu Sëriñ Tuubaa doo ko caa liggéeyloo nangu gi sëriñ Serigne Touba nangu itam moo tax résultat bi demee nii ndax tey ku fa dem da nga xam ne mor yi positif lañ jàmbaar lañ ndax lañ fa def ci diirub ña lu matugu ñaari at loolu ab état sa mënta jëf lu ko weesu kon taalibe yi seenu njàmbaar kenn mënu koo natt moo tax bi sëriñ bi di woote màggal gi ma wax ci làmmiñam ne la sëriñ Saliou Mbacke waxoon ne joxe bi dafa jiitu laaj bi kon taalibe yi seen alal jëpp suñ beekoo moo tax waxtu ne ñu leen di so soññaka fàttali waaye ñu ngi góorgóor lañ man waaye nag nañ xam ne ab murit day liggéey waaye du wàcc wax bu da bëgg xattaa yaatiyeka leqin ne ñëpp gën a góorgóorlu wàcc ci loolu gën caa farlu gën caa defaat yitte fexe ba ku ci jëfoon nga jàpp ne mosoo caa jëf dara gëm na ci waxtu ne la nga mujj jëfaat ci sa aju fajo kon loolu ñu ngi ci soññ ñëpp kon sëriñ Ahma ñu ngi lay sant bu baax ci turu Cheikh Mouhamadou taxa ndax ba mu agsee jataa ba mu njëkkee def ak njabootu Serigne gi ba wax kàddu yam wax ba mu woote waatee ci kër Serigne Touba dajale borom xam-xam yëpp dafa wax ne daara ji de bi fi sama kilifa yi nekk la newoon cim xelam waaye bi ko fi yàlla defee nag muy sëriñ Touba mu ne awma benn bëgg-bëgg lu may moom mu ne bi ma ko xalaatee itam xalaatuma ci kenn ku dul yow. nga doy ma ci ak ñu ko àndal loola doy na sëkk yaakaar ji tasut ndax moom ci waxum seeral na la ko seerewaat ko kon wax ji du gudd ndax li ma ci waroon wax ci mbirum téere bi sëñ bi wax na ko xanaa li ma cee fàttali rek mooy ni ko sëñ bi waxee léegi loolu yoon wi dañ leen ko yàgg def ndax boo demee ca Paul Marty étude sur l'islam de Sénégal bu ma jubu noonu la tudd wax na ca lu bëree bëri boo jàngatee wax ji sax dangay xam ne nii ki koy wax noonu ki koy wax la ndax kii nettali histoire daa war a wax histoire ba nam demee waaye bu fekkee daa joxe xalaati boppam nam gise loolu bokkut ak la war nekk dëgg kon loolu yàgg na ci yoon wi di dëkkali yoon muru fu dëkkut di bind ci ñoom loo xam ne bokkut ak la am ñu di ko bàyyi muy jàll waaye loolu nag jàpp naa ne waxtoo jot na loolu waratuta am ndax àdduna weesu na ko taalibe Serigne Touba itam fas nañ ci yéene di fulla joo xam loolu dootu amate nii ko sëñ bi waxee rek naa ne nag ñoom seen xikma dana weesu buñ déggee lii ñu xam ne doomu aadama junee njuumte dana ko dal donte yéene ji mën naa bay ñaaw waaye bu ci njuumte amee nag muy loo xam ne mën naa yàq ay sénération génération ndax mbind da du jeex ba téeméer ay téeméeri téeméeri at dafay des ndegam njuumte am na ca nag kon nañ ko dindi buñ ko dindiwut tam ñu far ca turu sëriñ bi génne ko ci histoire bi ndax nit boo koy bindal histoire dangaa war a gëstu bala ngay wax wóor leer comme na ma ko waxoon daaw alxuraan sax dafa wax ne na naqussu alayka naba'ahum bil haqq li ma lay nett li ci la weesu woon sax dama koy teg ci dëgg kon histoire ku koy nett li faw ak maandu moo ko war a lal ndax taarix li ñuy wax ak taarixu laa yarham boo agsi foo xam ne mën naa métti te ka ka koy waxal sax tubaab yi li ci ëpp noonu la ñuy bind ñoom kon nag ñi ngi leen ci soññu leen xamal xamale fii la ci yoon wépp nekk fii li daairatu Rawdu Rayaahiin def nañ xam ne ci ndigalu sëriñ bi dañ ko def te ànd nañ ko yoon yëpp ànd ko taalib yi suñ tubaab yëpp kon ñi ngi leen ci diglu rek di diglu ba xam nan ngeen koy def lu ngeen ci lu ngeen ci lu ngeen ci jëfandikoo nag te ànd kook ñoom ñu ànd koog yéen bu faw